li naan mbaam gàtt na loolu waaye si jur gi la bokk. waaw bu njëkk dañ doon wax naan fuite des cerveaux ñi amoon xam-xam ci réew mi ñoo daan dem tugal. Mm-hmm. dem liggéeyal waa tugal. Mm-hmm. jamono ji li gën a important ci réew mi suñu matière première du pétrole bi du gaz du or doomu aadama yi la jeunesse bi la. Mm-hmm. jeunesse bi mooy con kan mooy dans l'histoire de l'humanité amul benn réew bu beneen réew développé. amul musul am donc maanaam sénégalais yi fi nekk ndaw yi fi nekk. ñii di dee ci géej géej ñii ñii ñii mooy bras yi nga xam ne ñoo war a tabax Sénégal. Mhm. donc man wax naa ko sànq man la même kenn su demee immigration régulière. Mhm. maanaam am sa visa nga dem normalement ci avion sax perte mhm. mal pour Sénégal. dëgg la asumaak nag ñii nit ñi di si ñàkk seen bakken donc réew priorité la war a doxee. soo bi ñu def sànq lu ci suñu yoon ci loolu lay wax priorité la réew war a doxee. ndax su ñu waxee santé wax éducation pour man yaa a des choses yoo xam ne balaa ñuy wax sax yenn. yenn yenn yi nga xam ne c'est juste pour euh, pour euh, nan laa ko mën a waxee dafa nekk juste pour pour pour comme comme de la poudre aux yeux yenn projet yu bëri c'est de la poudre aux yeux donc nañu revenir ci basique yi nañu ñëwaat ci base yi nga xam ne mooy téye société mooy mm. njàng bu baax mooy sécurité parce que réew mi xam nañ ni mu demee jamono ji mm. mooy santé nit ku feebar mën a faju fii ndax dañ koy wax lu bëri man saa ma gisee suñu benn sax benn njiit bu feebar dem tugal faju ji loolu man gàcc la war a doon mm. actuellement on a on est en on est dans un pays boo xam ne on a tout pour avoir un nouveau départ. te mm. Covid bi yee nañu. Mm. donc actuellement nañu focus ci priorité yi góorgóorlu avancer parce que tey jii réew moo gis Rwanda ci guerre la jógee Chine fu méttee méttee méttee lañ jógee donc lu keneen di def ñun mën nañ ko def am nañ xam-xam bi. am nañ doole parce que comme je l'ai dit soixante quinze pour cent population Sénégal moins de trente cinq ans lañ am mm. nañ te énergie jeunesse da nga koy convertir soit mu baax wala mu bon. tout à fait. donc nañu fexe góorgóorlu ba nga xam ne jeunes yi gëm ne war nañ mën a réussir seen réew. am na solo merci.